loolu jaay sama gars yi combat bi jeex na Modou daan na félicitation mooy li ma wax nee naa combat bi ki gën a rapide rapidité mooy daan Modou Lo dina ëpp rapidité dina leen dóor ba dëpp ba jóg te gars yi di kii boo ñaan dafa jël poids tu vois boo xoolee bu muy dóor Modou moo gën a gaaw loxo Modou moo gën a gaaw loxo téeméeri junniyoon boole ci Modou ba kii boo ñaan il a misé trop sur le mystique seen camp bi dañu misé trop sur le mystique jël làmb jëpp teg ko ci mystique Modou entraînement mo koy fay gis nga pare bu yag mo jëk ñew esat pare bu yag tok di xaar parce que entraînement am la gën lu mu liggéey la gëm tu vois une fois de plus boy ñaan rek travail rapidité bi parce que fam am lenteur quoi bu gauche droite bi mais c'était trop lent Modou dafa am rapide dinaa combat bi ki gëna rapide moy moy moy daan té Modou gën a rapide Ama Baldé tamit dafa amoon lenteur day naan ni jam benn Modou pour leen rapidité ngeen jóg Modou day tek ay polo mel ni jour bi entraîné ku ko ci bëgg daan fo nga am rapidité tu vois boy ñaan tay sur sur poids bi gëm bu combat bi diréwoon sa day gën a am problème tu vois parce que bu jël poids bu graisse bu bëré ko yoy non quoi tu vois sama avis la nak quoi mais vraiment ku bëgg daan Modou Lô fu nga rapidité parce que il est rapide dafa fin dafa xor tu vois ay kii nii yooyu fara daanu ko de foog nga liggéey lu am rapidité